nu ngi jëm ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm premier octobre à l'arène nationale mbokk yi Kajoor production la ñu ci àndal ak Ibrahima Diop ouverture de saison de feu ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole waa Lansar jàmm gën Sikap Mbao Fora préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw mu war a jàkkaarloo nag ak mboor Mbowar waa Cambérène daal di ñëw waa parcelle 1 ba kenn du des gunge seen doom góor a sopp waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu du ngeen gaaroo gaar dina fa jàkkaarloo Zallo Sa Thiès bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène jàkkaarloo fa ak Modou Vanda ak yeneen six combats yu neex ci bésu premier octobre mbokk lamb ji nag en live pay view lay doon ci seen affiche point du xam ngeen seen affiche min ngeen bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom ciy Kajoor production nee na daal dër di parcelle jàmm bu jeex mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan ko mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu si sur Kewel Info di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daayatu Musashi di noonu Musashi daal di nuyu kilifa diine yëpp tey na ñuy fii si Pikine ñoo seet ki nga xamante ne moom mooy Père Abdou Bakhoum mu nekk manager ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé gannaaw na bañ defee face to face ba tey gis nañ li nga ne moom mooy coow li day wëy Ama Baldé Modou Lo mu nekk combat boo xamante ne le cinq novembre gis nañu wax ji bari na polémique yi bari na mais dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan nuyu. maa ngi lay fay di nuyu Sénégal maa nuyu nuyu moom mënu ñàkk maa di nuyu monde wax rek ne ñu en route diggante Gambie Sénégal maa ngi leen bu baax di leen masawu seen coono dañ nañu ay coono yu métti métti ci yoon wi waaye nag ah euh, wolof ñaa ne lu yëngu la ko yëngale ko pour doole donc dañuy ñaan yàlla nag ci kattanu yàlla coono bi nga xam ne bii moom la ñu am ñoom ñëpp ànd ak ama yéene ko jàmm yéene ko ndam mu duma mu loo daan ko yal na coono boobu soppale ku bànneex ci ñoom ci ay cheikh wu jot maa ngi nuyu ñëpp sant Euh, père Ama Modou Lo le 5 novembre mu nekkoon combat boo xamante ne bari na woon coow combat bi dina am wala du am dama la seet si nga ne ma combat ci kàttanu dina am parce que man dama cee daj ay coow te am naa ay preuve yu leer yoo xamante ne ak lu mënti xew combat dina am ba nga koy wax ak tamit instant bi fu mu toll da nga toogoon ci ay preuve leer. non xam nga ay preuve mënta nga signé am contrat bu ñu la jox au niveau de Sanse nga ko ñu jox la. règlement intérieur yi nga xam ni moom nga moom au niveau de CNG nga xam ko xam ay règlement intérieur yoo xam ne ba CNG taxawee nekk CNG ba léegi nga nekk manager ba léegi chaque année ñu servir na ko daan la ko service règlement yooyu bu yokk sax bariwul li ci yokk donc li nga xam ne lii règlement intérieur entre un ba ba nga jëm cent article vingt cinq li ci ëpp rek article vingt cinq moo ëpp li ci am li ci gën a doole donc yooyu yëpp ñu xamoon ko yu si am na yoo xam ne yaw euh, xëy na mën a koo xam parce que journaliste si waaye ñun ñi nga xam na ñu si contrat yi di dem di ñëw normalement ci yoon war nañu mën a xam règlement yi nga xam ne dossier yoo xam ne dem na ba tribunal nga yéeg ci wàcc yaa ngi may dégg jàkkaarloo ci procureur jàkkaarloo ci juge jàkkaarloo ñëpp am na ci yoo xam ne yaa koy xam noppi ci rek waaye mënu la ci wax loo xamul kon donc yooyu doon def noonu yëpp. sàmbala yooyu muur looloon def noonu yëpp moo ko tay mais moo la gën a xam ne amalay bëreem waxi caaxaan waxi picc rek lay def du ko def ci kaw nii mais tegu ko fenn. kon tribunal da cee amoon yoon kon moo tamit da doon yéeg entre tribunal moom it ak ñi nga xam te moom mooy Ligue Nicolas amaa noonu kon procédure yëpp ñoo bokkoon. non ñoom du ñoom ñoo dem. ñun dañoo def ay contrat yoo xam ne dañoo amoon lu ci lu ci lënt waa tribunal war koo xam doon laaj menaces yi nga xam ne ñoom ñoo si li nga xam ne lii mooy contrat yi. ñu dem ci ay yoon yoon yi wàcc ñu wax laaj ñu li ñu xam ci contrat bi ñu wax leen ko li nga xam ne nii ci suñu droit ñu wax leen ko la ca lëndam ñu ne xamuñu loolu. la ca lëndam c'est-à-dire yéen da ngeen amoon euh, benn yéen ak waa Ligue Nicolas lool wala yéen euh, contrat bi nga xam mooy lié woon ak Ligue Nicolas bi ñu doon wax jeex na wala jeexul euh, procédure boobu pour pour ba léegi leerul sax. non pour mu leer day xaw a kii parce que lu ñu jugé ba pare la. waaye li nga xam ne nii moom laa leen mën a xamal baal genre sponsoring la woon bu nekkoon ci diggante caam ana na xam ak diggaay business ak yooyu moo ci nekkoon moom bon yooyu nag diggante bi bi nga xamee ne euh, euh, oh, kii euh, Demba Ka dugg na ci moom itam xam naa ci la coow yooyu amee ba kenn ku ne ci ñoom itam kenn ku ne gis na sa morom yaa ngi may tooñ comme yaa may tooñ dooñ tooñ man yaa ngi ma wax ni yaa ma def lii waroo maa def lii nii fan nga waa taxaw fii la waa taxaw loolu taxaw ñu dem fii Mbaxane nekk benn mais am comme contrat yo am na yoo xam ne yi nag ñoom dañ coo defoon ay signature yoo xam ne yi euh, maanaam euh, ñoom dañuy waxoon ne dañoo signé nangami yoon nangami yoon yooyu nag man man leeru ma woon laaj nañu ma ko au niveau de gendarmerie ma ne leen nangami yoon la ñu woo bi tribunal ma ne nangami yoon la loolu rek lañ ko taxaw ñu yoon fa dem combat bi kon fan nga ko tegoon ne combat dafa ndax yaa ngi naan Modou Lo moom leeroon na ko sax Ama lay bëreer kon da doon da nga jàpp ne Modou euh, da kii rek da magu Ama. non demeewul noonu sax da def rek parce que bu fii Pikine di dem jëli Boy Niang daa bëgg a fekkale Boy Niang ak waa Pikine waaye bëgg a fekkale ak waa Pikine. ah Modou di liggéey. attends mon frère xam nga am yoo xam ne mën na ñàkk genre boobu loolu façon boobu c'est bien. parce que tey jii daa bëgg ñoom tey jii ñee bu ñu gisee ne kii li muy la war a bëri kee war a bëri moom ñuy dox suñu combat pendant cinq ans mu jël benn combat ci diggante saraxal ko ci biir yaa may dégg naa kii laa war a jëkk bëri rek moo war a jëkk bëri rek kii laa war a bëri rek a bëri rek a nga daw fu nga daw aw fa nangoo def signature xam nga ko def signature ba démb barki démb ci mooy nangu def signature ko est ce que si loolu ngeen ko war laaj yéen journaliste da ko war laaj ne ko est ce que yow da ngaa ñemewul bëri ou dafa bëgg la contrat bi jeex ak yéen pour mu mën a nekk ci bopp. wax loolu. non pare na de. yéen lay wax loolu. Modou pare man pare. ah père nag pare na ah, ma ne xoolal ah. pare naa parewul. Ah. na seek lay mu ñëw. da nga déggaat yeneen tappale yu mu dugal. ñi muy fay géwél yi ñi muy mu leen di neexal à sa cër géwél sax tooñu maa ngi tooñee nen mais am na ci yoo xam ne dañoo jaay seen gor sax mu leen di neexal ay boo demee sax ñuy wax yenn bagages yi am na sorte yoo xam ne yii ñu koy def ça bien. nit ñi da nga leen di yéene nit ñi jàmm même bu ñuy faralee Modou Lo am nañu faral Ama te ñooñu ñu ngi toog jàpp seen njàmbur di ñaar ñaari bëri am wér daje mais ki feebar na kii daay dugal recours kii daa war a dugal médical ki moom ñaata yoon la dugal recours ñaata yoon la dugal médical. kon baal yéen da ngeen a waaj a dugal médical. non ñoom ñooy wax loolu ñoom nañ ñu ñaan a jàmm. seen yàllu leen yàlla làqu na leen bàmmeelu gumba làq na jumaay Tuubaa yàlla nañu yàlla musal ci seen làmmiñ yi. ko. waaw yow yéen ñun bi bidi ngeen ko bu yàgg. mooy docteur am. ah bi mooy docteur bi nga xam ne bii mooy yor saal bi. Ah. tey jii lu ko mënoon am ci àdduna. même bu duma moo ko yor a faj. dana gis kayit yi parce que man ba ma jotee kayit yi ci entre diggante ma Gris Bordeaux moom laa indi ko wan ko ko mun ne ma lii ak lii ak lii la ñu traité ko ba mu wér. Gris Bordeaux tër ba pare ñëwaat dellusiwaat naa dama doon dóor sax sama mbagg su ma ko sama poq ci ko yaa ma dégg naa leen xaal lu reg ba ba mu des xaal rawatina xaal bu nëpp muy dóor saak ba loxo ba summeeku wala xaw ma si di yee rocce ko xaw ma yooyu noonu. mais kon yow euh, yi naan Modou Lo mi ñu gis euh, Ama Balde bi ñu gis parewul moo doo ko gën a pare ñu ne da ngeen di bindu médical pour bëgg koo dugal loolu la ci doon. waaye loolu wax yi picc leen loolu. bàyyi leen loolu ñi ñuy neexal ñuy wax loolu la leen la leen ñu lekk seen xaalis te toog. waaye waaye yow ma ne may ñu waaye yow moom bokkatul ci combat bi ñëpp dañu ko jëppi ki ñu àndal mooy mbëru askan wi ama amaay mbëru askan wi ñëpp moom la ñuy laaj moom la ñuy xaar la preuve moom wan na xam na ko gis na ko Gàmbi yow demoon nga Gàmbi ba mu duggee ca salle ba lépp changé lépp neex ba muy dugg moom Modou ba muy dugg maa ngi ca juróom ba juróomi ànd ko ñaari ñaanaa le roi wa nii le roi ban roi. ban le roi du dara. nag Modou mooy roi. waay waay roi dina toog cinq ans six ans bëre woo daw di laqatu. fu ne nga daw dugg fa. ah mais ñu gis gàmb bi ci côté organisation bi noonu la ko gisee ndax nee nañ nag wax dëgg yàlla nee na yéen pikin ngeen yéen pikin ngeen indi pikin ngeen màbbal indi ko te dañ leen a mayoon ay nombre de personnes yi ñu leen mayoon da ngeen koo dépassé. ñaata mbër ñoo jóge fii doon signé ji da ngeen yaakaar ne ah man ak a signé ji am seen amu doon mu ànd Euh, euh, euh, kii Secom Balde amul ñu mu anta daa war a bëri ci ñoom journée Eumeu Sène bi xanaa ñun kenn nit booy dem Gambie ay mbokkam nekk fa ay famille am nekk ci biir Gambie dëkk fa ñi nga gisee ñu ànd ñoo ñëpp toog suñu ginnaaw ak ay soxna ak ñeneen ñëw noonu ñooñu fa lañu bokk dañoo dagg seen bii uniquement pour ñëw ca salle ba ñu naan ah, mooy dañoo boobu nit ñi ban kii boobu nit ñi moom moo yu luyee fukki kaar ak lu topp dem ci écrit bu ne tas na écrit yëpp. récupérer leen dem na Bawol tas ko dem na Bawol tas ko tas Faas tas Yoof tas bu Moussa Dioum tas bu sos tas ñëpp récupérer mbëri ya te ñooñu xam nañ ne ni du seytaane la Modou Lo ah moom jàmbaar dañ koo créer moom mu ñëw nag réunir boo jàmbaar bokku jàmbaar mbëri fa mbëri fa nekkoon yëpp bokk jàmbaar ànd ak moom te bokkuñu écrit écrit rock énergie la bokk ñuy gaas nit ñi man dinaa leen porte man ci seen laa jëm xam nañ ñoo sax moom parce que mbër moo bokkul benn écrit amoo droit bokk ak moom benn signature contrat dem ak ñun xam nañ loolu ba pare ñu jël ay gaz di gazé booy pour lan ñuy gazé booy su ma xamoon ba mu ñëw ma ay nervi la àndal ay nervi laal gisoo ko. waaye yow ma ne ñeme naa Modou dana génn di gaz nit ñi xam nga ne ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko gazé mën naa la ko wan booy bii ma sol bu la mu ngi nii ki ma lay wax nii ngi nii ñu dinañ jël suñu gaz dinañ jël di gaz suñu bopp ñun. ba sol bu la lii. mais kii xaw ma nan Ndiaye xaw ma lan. kii yi la fekk na lépp. ban booy. ok mais ah mais ñun fii gis ñu pompe a wax ne kii yoroon pompe à gaz bi kii la. kii mooy pompe bombaakaay bi toll ni butéelu Coca Cola. yéen tam yoroo leen pompe non ñun man fekk na dem nañu kii bi laa ko fekk. Ah. ñu yore bomba gas ñun naa ñun dañ leen a bomb ñun ñun daanaka mocc bi jëlee ndax da leen a bomb dañoo feebar. fan lañ leen pompe à gaz ñoom. ci ci féeri bi. ci féeri ah ci a ah, du ci face à face bi après la. boobu ñu ngi dem. boobu yéen a ngi dem. waaw. ok est ce que coow moo amoon rek. xam nga man kii moom ma ko wax nii. mais suñu ma ko waxoon foofu noonu. pour Gambie. dañuy fayeeku par force. dañuy fayeeku. mais est-ce que tey boo bootee plainte yéen gis ngeen tamit ku pompe à gaz nekku nag coow bu amee coow am na rek. dara du réer. satellite yaa ngi fi. satellite yi da ngeen am preuve. luñ ci mën a am nañ ko xam danaa ko xam. Ah, mais ñu ngi naan ñaari camp nag per pompe à gaz. waaye itam may ñu waaye itam moom frère. Ah. ñun dinañu dem ay signature fii rek di wuti gaz la benn ñaari la 17 la woon yaa may dégg ci biir salle bi la ma commandant Thioune xamal na ma ne fii affaire bi yem ndax gis nañu ne daal signature bi daf dootu ko jar yaa ngi may dégg ñun dañoo demoon uniquement pour dîner de galaa bi muy samedi jàkkaarloo ba war a nekk dimance ci ngo ci ci ngoon léegi ñoom ñu yàq ko yàq ko yàq ko yàq ko yàq nañu liggéey ni ko laay xaalisam bépp yàq nañu ko Modou Lo yàq na xaalis liggéey ni ko laay bépp ma loolu yéewu jàmm sax li ni loolaay mais mais mais tamit gis nañ tamit ci saal bi ñoom tamit nee nañ Ama Baldé moo xëpp ñebbe Modou Lo Modou Lo ñaata yoon la xëpp ñebbe mu Eumeu Sène ah amul ah Modou ñaata yoon la ëpp xëpp ñebbe Eumeu Sène ñaari yoon mais ñoom ci saal bi nee nañ Ama moo njëkk a ko ay sawak lu ne Eumeu Sène di ko muñ moom bu ñu ko tuuroon ndoxu duus sax waru wax ma ah, mais moo tax am na maturité dem ñibbi non ban ñibbi loolu taxu koo ñibbi de ba ñu ko nee nag jàkkaarloo ama taxaw ñu yëg ci kaw seen ci la dawa dem ñibbi. mais est-ce na fa ndax wax ji fa am. ñoom sax waroon nañoo bokk benn taabal sama organisation affaire dama nee naa ko Modou kenn du dox seen diggante benn taabal la ñuy teq ñu jàkkaarloo hmm. waaw foofu la ñu waroon def am na seen ak bomba kii ñu taxawloo kenn du fa dugg ñoom ñaari ñu mbëri rek jàkkaarloo kenn du fa toog. loo la doon yoon waaw. mais kon ñi naan Ama de moom moo yàq face to face bi looy ñoo ñooñu ay naafeq lañu nit ko baax du naa fekk naa fekk lu dugg àjjana ba dee bañ ko ba moo yéex a ñëw ba ba moo mujj a ñëw parce que daa bëggoon ba ñëpp toog mu ñëw toog ba mu ñëwee toog daa jubal directement fa mu toog jógu fa ba bi ko gaayen bi way mu jóg ànd na moom di fecc mbooloo di fecc no ànd ak moom pour bëgg a dawaale yoxoos waale ñu nit ñi di fecc ñëpp xalaat nañu mur jar ci buntu ba dëpp cet tëj buntu ya daw dem ñu ko booy dàq ci ko pour ne ko kaay kaay kaay déet bu dem mu tuuti mu bëgg sax te alkaat yi kenn am kii jàmm mais kon ñi naan kon le 5 Ama moo pare wul kon yéen pare ngeen. waaye toogal waaye may ñu. pare ngeen waaye ñu dama ne may ñu ñaanal ñu jàmm yéen a géwél ñaanal ñu jàmm ngir yàlla ci kàttanu yàlla musal ñu ci musal ñu ci wax yu ñu ñun nekkuñu ku yàq ay làmb ñu làmb tey yàquñu làmb suba ñu du yàq làmb Falaye Baldé jur Ama Baldé moo tax yàq làmb yi may dégg suq yu neex yi nga xam ne tekkuñu dara ñooy yàq làmb kon face to face feneen fudul fii waaye ma ne suq bu ñu ko bëggee sax nañ ko def rôle lalam lamb ji bu la neexee nañ ko def rôle lalam rôle lalam ñu faale wuñ loolu. ok ñu naan face à face yi jaru ko nañ xaar bala 5 novembre ñaari jàkkaarloo loolu d' accord. loolu du ñoom ñoo koy wax promoteur bi mënut a tëgg ay commandes def ci 300 et quelques mille dugal ci xaay bu dul jeex yaa ma ne ñu naan ko fii ngay def ak lii ngay def tey jii suñu ma woon suba suba ne ma kaay signé abonné pour signature contrat damay dem signé ko pourquoi seen xaay bi ñu dugal xanaa baaxul promoteur bi ñoom liggéeyugal li ñu ci dugal seen xaay xanaa baaxul sponsor bu dugg ci seen xaalis ñu ne ñu fii la ñu yem ak ñu béyam dama ko def tey dama ko def suba sama mbër wax na ko nee na nee na ma carrément signature contrat bu mën a am ne nekk seen biir néeg ñoo muur loolu lañ ko fa def néegam nee nañ ko fay fekk nee ma siiw na ñoom ñooy wax loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo ragal ñi mu njëb signature contrat xam naa ne wóor na ma wóor yàlla ne mën naa ñëw bu ñu jour ba bés ba benn mu mbëkk comme naa aw na fi mbër moo xam ne bii daa dem ba ci ñemewul a bëri jeeg mbër ma dóor loxoom naa dama doon dóor sama jabar arwaan ma dagg ma façon yooyu yooyu lay bëgg a def waaye du sotti. Ah, kon yow da nga jàpp ne kon yow daw bi nekku ci kaa Modou Lo. waaye Modou Lo du ci kaa xalaam ba ci Modou Lo. dee na ko yàqee nag. Père Abdou Bakhoum fa ah. xanaa nekk ko fa woon mais nan la fa yàqee. demul ma rek xanaa nekk ko fa woon. maa ngi fa woon. léegi yow est-ce que Modou Lo ba muy dem booba signature bi jeex na. Hmm? est-ce que dem na ba mu jeex na booba. jeex mais coow la doon bañ parce que. affaire waxuma loolu lamb ak coowaan Modou Lo xanaa tey la bañ coow tey tey da bañ coow ba mu tawee sikki moom kenn xamul lu mu doon yaa may dégg di lu ne mu def ko gëmatoo kenn benn sëriñ yi sax xotti xotti xotti ay tooy sëriñ ko xottee ka lakk façon boobu ñun dañuy sant Serigne Touba ak waa dañu ànd ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra ñun nu ñu ànd ak kenn ñun mënuñoo ànd ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra ak waa kër Serigne Touba di ragal dara ragaluñu kenn ragaluñu kenn wor pour mu leer Euh, mbokki tournée yi suivre sur Kewel Info ñu daloon ki nga xamante ne mooy Père Abdou Bakhoum nekk manager ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé mënul ñàkk ndax buñ jëlee li nga xamante ne moom mooy Camp Parcelles dañuy jël ki nga xamante moom mooy Abdou Bakhoum mais en tout cas Lo Ama moom jaay na boppam la 5 daal gars yi kon ñu ngi xaar Ama incha allah. da nga naan ñu ngi ñu xaar lu Ama rek ngeen di xaar Modou bañ a ñëw da nga naan ñu ngi xaar ñaari mbëri ngi xaar kon ñaari mbëri waaw kay ndax Modou moom nee na instant bi bëree yéen rek pare ci nekkaat ci leneen non ma ne loolu muy wax noonu amul ak ah, gëmu ko ah, Modou pare na na pare dama ne gis naa lan gisa Modou waaye tam <laughs> billahi wallahi taala gisuma ci télé bi laa seen naa ko ci écran bi ah, barka alxuraanu karim mais gisuma ko fenn Pape Sarr nee na ah, Ama même dee bëree ñaari bekk nañoo bëri. déggoo li ma ay ma dama ne la moo loolu gën a xam ne bu doon doxee bekk yàgg yàgg dina dajeeg Ama foo Ama dajeeg moom day nangu ko bekk yéen ko ba jege dóor ci war ci koom di dóor ba nit ñi àtte. yaakaar nga sax béykat da koy daan jog wàll dóor ko ba fekk day dóor ko yenn dóor ci suuf sëlam ko suuf di ko dóor ba nit ñëpp jàpp ci. waaw père yow loo meree Modou nii <laughs> ah, ah loo ko meree. non du question ay mere ak yooyu ah. parce que bu ma ko mere di ko tere reer di ko tere añ ah. waaye ni ku baax nit ku baax day def dëgg bala mu wax ko nit bu noppee nekk dëgg wax dëgg naa fiq nga yi muy def nii daaw ko def pour ko amul di ko def pour lan waaye yow daw daw ay signature de contrat ñu organiser loola saal bi rek boo gisee nga xam ne ba Ndiaye dañ dañ ci loo xam ne ni ligue de grande dañ ci loo xam ne mari dañ tàlli indi ay nit répété leen jox leen añ ak reer di leen jox lekk naan ak lu ne nga ñëw ba boobu yàqu ci deux minutes dem sa yoon pour lan pour lan muy dem yoonam question la doo leen ko laaj pour lan lan la. dafa coow kon waaye. ah. da ngaa yaakaaroon dafa waroon taxaw. waaye dama coow bu ci amee est-ce que du lan lay am. comme bu taxawoon est-ce que coow lu du gën waaw ma bëggoon na waroon na maa xam waroon na ma waroon nañu maa teel a leer la ñoom ñoo doon gaase booy yi fii laa yëgal nañu ko doon gaase kii la ma ko wax. kon gaase bi moo la mel. ba ma jënd gaz fekk ko ca biir saal ba gaase ko damay fayu par force. acca nan nga gisee Tapha Tine ak Eumeu Sène seen euh, présence noonu. ñoom itam jàkkaarloowuñu ndax itam loolu lépp Modou Lo ko yàq loolu lépp Modou Lo ko yàq dañoo waroon a parce que les gens sont mal dañoo waroon a bàyyi parce que Modou Ama bu ñu bu ñu jàkkaarloo woon bu ñu waxee ba pare sax affaire bi jeex dañoo waroon yéegal Eumeu Sène ak moom kii ba ñuy yéex wax ba pare ñoom ñu yéeg na ko ñoom ñëpp bari nañu ñoo xam ne ñu tey ji jógee saal ba gisoon ñaari mbër yooyu lañu doon bëgg wax nit ñi dégg nii tàccu moom amoon supporter yi mu àndal Gambie am na ba supporter lii àdduna yi doomu aadama jëlee ko fii pare yóbbu ko jël ay nerf yi jox leen yéen lu ne ay lu ne xamul kenn xamul lu mu doon xam nga ne bon bagage boobu sama waa ji sax na mosul gis bon bagage bu toll noonu bon bagage mën naa rey sax nit nga dóor ko ay nit nga jàkkaarloog nit ki yor ko mën a ko yor sax sa den loxo ñaar loxo yaa yore da wuute ay nit seet ko dóor leen ko ci ñoom ñoom bu ñu dee ko fatt dee wala commencement dee léegi lu ñuy wax ñoom ndax lamb rek mbooloo day dara ba tax muy ñu bëgg a rey doomu aadama su ma fekkoon moo xam. lépp de ñoo may blessé. waaye yooyu ñu ngi hôpital ma lan ñooñu kenn ñëw ci signature ba hôpital lañ leen yóbbu jële ne directement dinaa ko waxee fu ñu ko war a waxee parce que ñi ko doon def bokkuñ ci ekiri bi duñu ay mbër wala bu fekkee ne ay mbër itam yeneen écrit nañu bokk naa ko signaler au niveau de CNG ba pare bi ma war a def ma def ko mbër yi nag muy Eumeu Sène muy euh, Tapha ñoom ba ñu ñëwee toog nañu kenn ku ne xam na lan la fa indi saboté woo sa benn mbër yàqaloo kenn dóoroo kenn ba bagaas Modou Lo moo fa indi ay bomba gaz ànd ak ñoo xam ne ñi yor ay bomba gaz di bomba gaz ñi yaa ma dóor sab kii ñi moo yéeg ñi moo wàcc ba ci féeri maa ngi moom ñoo bokk féeri bi ñibbi si maa ngi Modou ñoo bokk féeri ñaari oto benn oto moo dox sama diggante oto ñoo sosaloon ni ñoom la ñoo dend benn oto ngi nii benn oto sama oto ngi nii benn oto mu nekk nii ñu ànd bëggee wàcc ma wàcc wàcc Banjul jóge féeri bi wàccaat lu tax dogale wuñ nit ñi gaase leen yëfi caaxaan la ñuy def nañu bayi lool li may tàggatoo mooy nga ne. looy wax waa Pikine. waa mobilisé wu. parce que Modou Lo mii yàq lamb ji la bëgg taxaw nañ seen kéem tolluwaay kattan lu ma ko jar na leen teel a wu fekk ko fa duma ko duma ko daan ko bu ñëwee fii nag ñu ko duma daan ko ñaari mbër yëpp dañu ko duma daan muy ama muy booñaa takkatu leen yéen ñëpp ànd seen ginnaaw rangé wul kenn ku ne ku ci bëri jëg moom mu ànd ak moom du nitu dara tekku dara du mënum dara du benn roi fële ko mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu si sur Kewel Info du nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daaytu Moussa di noonu Moussa daal du nuyu kilifa ñoo seet ki nga xamante ne moom mooy Père Abdou Bakhoum mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé gannaaw na bañ defee face to face festival ba tey gis nañ li nga ne moom mooy coow li day way wëy Ama Baldé Modou Lo mu nekk combat boo xam te ne le 5 novembre gis nañ wax ji bari na polémique yi bari na mais dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi père di nuyu Sénégal maa ngi nuyu rek nuyu moom mënu ñàkk maa ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu monde wax rek ne diggante Gambie Sénégal bu baax di leen masawu seen coono dañ nañu ay coono yu métti métti ci yoon yi waaye nag ah euh, wolof ñaan ne lu yëngu la ko yëngale ko pour doole donc dañuy ñaan yàlla nag ci kattanu yàlla coono bi nga xam ne bii moom la ñu am ñoom ñëpp ànd ak ama yéene ko jàmm yéene ko ndam mu duma mu loo daan ko yàlla na coono boobu soppale ku banneex ci ñoom ci ay cheikh wu jot ay nuyu ñëpp sant ñëpp Euh, père Ama Modou Lo le 5 novembre mu nekkoon combat boo xamante ni bari na woon coow combat bi dina am wala du am dama la seet si nga ne ma combat bi ci kàttanu yàlla dina am parce que man dama cee daj ay coow ci am na ay preuve yu leer yoo xamante ni ak lu mënti xew combat dina am ba nga koy wax ak tamit instant bi fu mu toll da nga toogoon ci ay preuve yu leer. non xam nga ay preuve mënta nga signé am contrat bu ñu la jox au niveau de Sanse nga xam ko ñu jox la. règlement intérieur yi nga xam ni moom nga am au niveau de CNG nga xam ko xam ay règlement intérieur yoo xam ne ba CNG taxawee nekk CNG ba léegi nga nekk manager ba léegi chaque année ñu serviroon na ko daan na ko service règlement yooyu bu yokk sax bariwul li ci yokk donc li nga xam ne lii règlement intérieur entre un ba ba nga jëm cent article vingt cinq li ci ëpp rek article vingt cinq moo ëpp li ci am li ci gën a ëpp doole donc yooyu yëpp ñu xamoon ko yu ci am na yoo xam ni euh, yow xëy na mën a koo xam parce que journaliste si nga waaye ñun ñi nga xam ne ñu signé contrat yi di dem di ñëw normalement ci yoon war nañu mën a xam règlement yi nga xam ne dossier yoo xam ne dem na ba tribunal nga yëg ci wàcc yaa ngi may dégg jàkkaarloo ci procureur jàkkaarloo ci juge jàkkaarloo ñëpp am na ci yoo xam ne yaa koy xam nopp ci rek waaye mënu la ci wax loo xamul. kon donc yooyu doon def noonu yëpp sambala yooyu muur loo doon def noonu yëpp moo ko tay mais moo la gën a xam ne amalay bëreen waxi caaxaan waxi picc rek lay def du def ci kaw nii mais tegu ko fenn. kon tribunal da cee amoon yoon kon muuru tamit da doon yéeg entre euh, tribunal moom it ak ñi nga xam te moom mooy Ligue Nicolas amaanoon kon procédure yëpp ñoo bokkoon. non ñoom du ñoom ñoo dem. ñun dañuy def ay contrat yoo xam ne dañoo amoon lu ci lu ci lënt. waa tribunal war koo xam doon laaj menaces yi nga xam ne ñoom ñoo signé. li nga xam ne ni mooy contrat yi ñu dem ci ay yoon yoon yi wàcc ñu wax laaj ñu li ñu xam ci contrat bi ñu wax leen ko li nga xam ne lii mooy ci sunu droit ñu wax leen ko la ca lëndam ñu ne xamuñu loolu. la ca lëndam c'est-à-dire yéen da ngeen amoon euh, benn yéen ak waa Ligue Nicolas lool wala yéen euh, contrat bi nga xam mooy lié woon ak Ligue Nicolas bi ñu doon wax jeex na wala jeexul euh, procédure boobu pour pour ba léegi leerul sax. non pour mu leer day xaw a kii parce que lu ñu jugé ba pare waaye li nga xam ne nii moom laa leen di mën a xamal baax genre sponsoring la woon bu nekkoon ci diggante ci am ana na xam ak diggaay business ak yooyu moo ci nekkoon moom bon yooyu nag diggante bi bi nga xamee ne euh, euh, oh, kii euh, Demba Ka dugg na ci moom itam xam naa ci la coow yooyu amee ba kenn ku ne ci ñoom itam kenn ku ne gis na sa morom yaa ngi may tooñ comme yaa may tooñ dooñ tooñ man yaa ngi ma wax li yaa ma def lii waroo maa def lii nii fan nga waa taxaw fii la waa taxaw loolu taxaw ñu dem fii Mbaxane nekk ben mais am comme contrat yoo am na yoo xam ne yi nag ñoom dañ coo defoon ay signature yoo xam ne yi euh, maanaam euh, ñoom dañuy waxoon ne dañoo signé nangami yoon nangami yoon yooyu nag man man leeru ma woon laaj nañu ma ko au niveau de gendarmerie ma ne leen nangami yoon la ñu woo bi tribunal ma ne nangami yoon la loolu rek lañ ko taxaw ñu yoon fa dem combat bi kon fan nga ko tegoon ne combat bi dafa am ndax yaa ngi naan Modou Lo moom leeroon na ko sax Ama lay bëreer kon da doon da nga jàpp ne Modou euh, da doon kii rek da doon magu Ama. non demeewul noonu sax def rek parce que bu fii Pikine di dem bëgg a feqale ak waa Pikine wala bëgg a feqale ak waa Pikine. ah Modou mon frère xam nga am yoo xam ne mën na ñàkk genre boobu looyu façon boobu c'est bien. parce que tey jii daa bëgg ñoom tey jii ñee bu ñu gisee ne kii li wi la war a bëri kee war a bëri moom ñuy dox suñu combat pendant cinq ans mu jël benn combat ci diggante saraxal ko ci biir yaa may dégg naa kii laa war a jëkk bëri rek kii war a jëkk bëri rek kii laa a bëri rek naa bëri kii neexul a bëri rek neex a bëri rek ki lee teñ mbër mi dàq la juróomi nga daw fu nga daw aw fa nangoo def signature xam nga ko nangul def signature ba démb barki def signature ko est ce si loolu ngeen ko war a laaj yéen journaliste da ngeen ko war laaj ne ko est ce que yow da ngaa ñimewul bëri bu fekkee ne day bëri Modou dafa bëgg contrat bi jeex ak yéen pour mu mën a nekk ci boppam. wax loolu. non Modou pare na de. yéen lay wax loolu. Modou pare man pare. ah père nag Modou pare na de. ay itam ma ne xoolal ah. pare naa pare wul. Ah. na seq lay mu ñëw. Ah. da nga déggaat yeneen tappale yu mu dugal. ñi muy fay géwél yi ñuy fay mu leen di neexal à sa cër géwél sax tooñu maa ngi tooñee nañu mais am na ci yoo xam ne dañoo jaay seen góor sax mu leen di neexal ay xaalis boo demee sax ñuy wax yenn bagages yi am na sorte yoo xam ne yii ñu ngi koy def ça bien. nit ñi da nga leen di yéene ñi jàmm même bu ñu faralee Modou Lo am nañu faral Ama te ñooñu ñu ngi toog jàpp seen njàmbur di ñaar ñaari bëri am wér daje mais kii feebar na kii daay dugal recours kii daa war a dugal médical kii moom ñaata yoon la dugal recours ñaata yoon dugal médical. kon baal yéen da ngeen a waaj a dugal médical. non ñoom ñooy wax loolu ñoom nañ ñu ñaan a jàmm. kon yàlla leen yàlla làq nañ leen bàmmeelu gumba làq nañu jumaay Tuubaa yàlla nañu yàlla musal ci seen làmmiñ yi. kon Ama dara jotu ko. waaye yow yéen médical bi bidi ngeen ko bu yàgg. mooy docteur am. ah docteur Ama bi mooy docteur bi nga xam ne bii moo yor saal bi. Ah. tey jii lu ko mënoon am ji àdduna. même bu duma moo koy yore faj. dana gis kayit yi parce que man ba ma jotee kayit yi ci entre ma ma Gris Bordeaux moom laa indi ko wan ko ko mu ne ma lii ak lii ak lii la ñu traité ko ba mu wér. Gris Bordeaux tër ba pare ñëwaat dellusiwaat naa dama doon dóor sax sama mbagg su ma ko sama poq ci ko yaa ma dégg naa ne xaal lu reg ba jantu. ba mu des xaal rawatina xaal bu nëpp mu dóor saak ba loxo ba summeeku wala xaw ma si di yéeroo cee ko xaw ma yooyu euh, yi naan Modou Lo mii ñu gis euh, Ama Balde bi ñu gis parewul moo doo ko gën a pare ñu ne da ngeen di bindu médical pour bëgg koo dugal loolu la ci doon. waaye loolu wax yi picc la bàyyi leen loolu. bàyyi leen loolu ñi neexal ñu wax loolu la leen la leen ñu lekk seen xaalis te toog. waaye waaye yow ma ne may ñu waaye. moom bokkatul ci combat bi. ñëpp dañu ko jëppi ki ñu àndal mooy mbëru askan wi. ama ama mbëru askan wi ñëpp moom la ñuy laaj moom la ñuy xaar la preuve moom wan na xam na ko gis na ko Gàmbi yow demoon nga Gàmbi ba mu duggee ca salle ba lépp changé lépp neex ba muy dugg moom Modou ba muy dugg maa ngi ca buntu ma ko ñaari ñaan la roi woon nii le roi ban roi. ban dara. Ah, nag Modou mooy roi. waay dina toog cinq ans six ans bëree woo daw di laqatu. fu ne nga doon dugg fa. ah mais ñu gis gàmb bi ci côté organisation bi noonu la ko gisee ndax nee nañ nag wax dëgg yàlla nee na yéen pikin ngeen yéen pikin ngeen indi pikin ngeen màbbal indi ko te dañ leen a ay nombre de personnes ñu leen mayoon da ngeen koo ñaata mbër ñoo jóge fii doon signé ji da ngeen yaakaar ah man nga signé ji seen amul doon mu ànd euh, euh, euh, kii Seko Balde amul ñu mu àndal daa war a bëri ci ñoom suñu am seen bi xanaa ñun kenn nit booy dem gàmb ay mbokkam nekk fa. ay famille am ne ci biir Gambie dëkk fa ñi nga gisee ñu ànd ñoo ñëpp toog suñu ginnaaw ak ay ay soxna ak ñeneen instant ñëw noonu ñoo fa la ñu bokk dañoo dagg seen bii uniquement pour ñëw ci saal ba ñu naan ah, mooy dañoo boobu nit ñi benn boobu kii boobu nit ñi moo moo luyee fukki kaar ak lu topp dem ci écrit bu ne tas na écrit yëpp récupéré leen dem na bawol tas ko dem na bawal tas ko tas faas tas yoof tas bu Moussa Dioum tas bu sos tas ñëpp récupéré mbër ya te ñooñu xam nañ ne du seytaane la. Modou Lo ah non Modou dañ koo créer moom mu ñëw nag réunir booy. bokk jàmbaar mbër ya fa mbër ya fa nekkoon yëpp bokk jàmbaar ànd ak moom te la bokk ñuy gaas nit xam nañ loolu sax que mbër moo bokkul benn écrit amoo droit bokk ak ba pare ñu jël ay gaz di gaase booy pour lan ñuy gaase booy su ma xamoon ne Modou Lo day gaase booy boobu damay jënd gaas xaar ko ci saal ba mu ñëw ma gaase ko. Modou Lo est-ce que moo gaase. moo waaw moo ko tey. Modou est-ce moo gaase ay nerf bi laa àndal ay nerf bi laa àndal ñuy gaase booy. mais Modou est-ce que moo gaase tamit père. Modou laa lu gisoo ko. waaye yow ma ne ñeme naa Modou dana génn di gaas nit ñi mais xam na ñi ko ñi ñi ko ñi ko ñi mu àndal ñoo ko gaase mën naa la ko wan la booy bi ma sol bu lëli mu ngi nii ki ma lay wax nii ngi nii ñu dinañ jël suñu gaas dinañ jël gaas di gaas sunu bopp ñun kan ban booy. buy solu bureel yi. mais kii yoru xaw ma nan Ndiaye xaw ma lan. kii yi la fekk na lépp. ban booy. ok mais. mais ñun fii gis ñu pompe à gaz foto ngay gis. non da ngay a wane kii yoroon pompe à gaz bi kii la. kii mooy pompe bombe à gaz bi toll nañu Coca Cola. yéen leen pompe ñun man fekk na dem nañu kii bi laa ko fekk. ñu yore bomba gaz ñun naa ñun dañ leen a bomb ñun ñun daanaka mocc bi jël ndax da leen a bomb dañoo feebar. fan lañ leen pompe à ci ci bi. ci fee ah ci biir da a ah, du ci face à bi après la. boobu ñu ngi dem. boobu yéen a ngi dem. waaw. ok est ce coow moo amoon rek. non xam nga man kii moom ma ko wax nii. mais suñu ma ko waxoon foofu noonu. pour Gambie dañuy fayeeku par force. dañuy fayeeku. mais gis ngeen tamit ku pompe à gaz est ce na rek. dara du Ah? satellite yaa ngi fi. satellite yi da ngeen ci mën a am nañ ko xam danaa ko xam. Ah, ñaari cas yëpp yoroon nag père pompe à gaz. waaye itam waaye itam moom frère. Ah? ñun dinañu dem ay signature fii di wuti gaz ñun demuñu woon sax kile benn ñaari jàkkaarloo la di sept la woon ak seize. yaa ngi may dégg ci biir saal bi la may commandant Thioune xamal na ma ne fii la affaire bi yem ndax gis nañ ne daal signature bi daf dootu ko jar yaa ngi ñun dañoo demoon uniquement pour dîner de gala bi muy samedi jàkkaarloo ba mën a nekk dimanche ci ci ci ngoon léegi ñoom ñu yàq ko yàq ko yàq ko yàq ko léegi xëy nañu liggéey ko laay xaalisam bépp yàq nañu ko Modou Lo yàq na xaalis liggéey ko laay bépp Modou Lo yéenewu jàmm sax liggéey ko laay mais mais mais tamit gis nañ tamit ci saal bi ñoom tamit nee nañ Ama Baldé moom moo xëpp ñebbe Modou Lo Modou Lo ñaata yoon la xëpp ñebbe mu ëmb seen ah amul ah Modou Lo ñaata yoon la ëpp xëpp ñebbe ëmb seen ñaari yoon mais ñoom ci saal bi nee ñu Ama moo njëkk ay sawak lu ne ama seen di ko muñ. Oh. moom bu ñu ko tuuroon ndoxu duus sax waru wax. ah moom am na maturité dem ñibbi. non ban ñibbi loolu taxu koo ñibbi de ba ñu ko nee na jàkkaarloo ama taxaw yéeg ci kaw seen ci la daway dem ñibbi. mais est-ce xajoon na fa ndax wax jafa fa ak. Eh, ñoom sax waru nañoo bokk benn taabal su ma organisé woon dama nee naa ko Modou Lo Ama Baldé kenn du dox seen diggante benn taabal la ñuy ñu jàkkaarloo hmm. waaw foofu la def am na seen ak bomba kii ñu taxawloo kenn du fa dugg ñoom ñaari ñu mbëri rek jàkkaarloo kenn du fa toog. loolu la doon yoon. waaw. Ama Balde moom moo yàq face to face bi looy wax. ñooñu naa naafeq la nit ku baax du naafeq naafeq lu dugg àjjana. Ama Balde bañ na ko ba moo yéex ñëw ba ba moo mujj a ñëw parce que daa bëggoon ba ñëpp toog mu ñëw toog ba mu ñëwee toog daa ji ba directement fa mu toog jógu fa. ba bi ko bi way muy jóg na moom di fecc mbooloo di fecc ànd na moom pour bëgg a dawaale yoxoos waale ñu nit ñi di fecc ñëpp ñu xalaat nañu mur jar ci buntu ba dëpp tët tëj buntu ya daw dem ñu ko booy dàq ci ko pour ne ko kaay bu dem mu tuuti mu bëgg sax taarkaat yi. loolu kenn nag am kii yoon nañu du jàmm. mais kon ñu naan kon le 5 Ama moo pare wala kon yéen pare ngeen. waaye toogal may ñu. pare ngeen waaye may ñu dama ne may nañu te ñu ñaanal ñu jàmm yéen ak jëwee ñaanal ñu jàmm ngir yàlla ci kàttanu yàlla musal ñu ci musal ñu ci wax yu yii ñun nekkuñu ku yàq ay làmb yàquñu làmb tey yàquñu làmb suba ñun du yàq làmb Falaye Baldé jur Ama Baldé mos a yàq làmb yaa may dégg suq yu neex yi nga xam ne tekk ñu dara ñooy yàq làmb. kon face to face bi mënoon yéen a ngi xaar feneen fudul fii. waaye ma ne suq bu ñu ko bëggee sax nañ ko def rôle lalam lamb ji mën a neexal nañ ko def rôle lalam ñu faale wuñ loolu. ok ñu naan face à face yi jaru ko nañ xaar novembre ñaari jàkkaarloo loolu d' accord. lool du ñoom ñoo koy a tëgg ay commandes def ci trois cent et quelques mille dugal ci xaar bu dul jeex yaa ma ne ñu naan ko fii ngay def ak def tey jii suñu ma suba suba ne ma kaay signé abonné pour signature contrat damay dem signé ko. pourquoi seen xaar bi ñu dugal xanaa baaxul promoteur bi ñoom liggéey ko li ñu ci dugal seen xaar xanaa baaxul sponsor bu dugal ci seen xaalis ñu naan ñun fii la ñu yem ak du ñu fi am dama ko def tey dama ko def suba sama mbër wax na ko nee na nee ma carrément signature contrat bu mën a am ne nekk seen biir néeg ñoo muur loolu nañ ko fa def néegam ne nañ ko fay fekk nee na ma siiw na ñoom ñooy wax loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo ragal ñi mu njëb signature contrat xam naa ne wóor na ma wóor yàlla ne mën naa ñu bu ñu des jour ba bés ba benn mu mbëkk kam naa aw na fi mbër moo xam ne bii daa dem ba ci jour combat ñi mu la bëre jeeg mbër ma dóor loxoom naa dama doon dóor sama jabar armoire ma dagg ma façon yooyu yooyu lay bëgg a def waaye du sotti. Ah. kon yow da nga jàpp de kon yow daw bi nekku ci kaa Modou Lo. waaye Modou Lo du ci kaa yàqalam ba ji Modou Lo. déedéet ko yàqee nag. Père Abdou Bakhoum nekk fa. Ah. xanaa nekkoo fa woon mais nan la fa yàqee. demul ma rek xanaa nekkoo fa woon. maa ngi fa woon. léegi yow est-ce que Modou Lo ba muy dem ba ba signature bi jeex na. Hmm? est-ce que dem na ba ba jeex na. boobu jeex mais coow la doon bañ parce que affaire bi. waxuma la loolu lamb ak coowaan na Modou Lo xanaa tey la bañ coow. tey tey la bañ coow. ba mu tawee si kii moom kenn xamul lu mu doon yaa may dégg di lu ne mu def ko gëmatoo kenn benn sëriñ yi sax xotti xotti xotti ay xotooy sëriñ yi ko xottee ka lakk façon boobu ñun dañuy sant Serigne Touba waa këram dañu ànd ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra ñun nu ñu ànd ak kenn ñun mënuñu ànd ak ak Cheikh Ibra ak waa kër Serigne Touba di ragal dara ragaluñu kenn ragaluñu kenn te duñu wor pour mu leer Euh, mbokki tournée yi suivre sur Kewel Info ñu daloon ki nga xamante ne mooy Père Abdou Bakhoum nekk manager ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé mënul ñàkk ndax buñ jëlee li nga xamante ne moom mooy camp parcelle dañuy ne moom mooy Abdou Bakhoum mais en tout cas daal Lo Ama Baldé moom jaay na boppam la 5 daal gars yi kon ñu ngi xaar Ama incha allah. da nga naa ñu ngi ñu lu di xaar Ama xanaa Modou Lo du ñëw ba ngeen koy xaar Ama ngeen di xaar Modou Lo bañ a ñëw da nga naan ñu ngi xaar ñaari ñu ngi xaar kon ñaari mbëri waaw kay ndax Modou moom nee na instant bi bëree yéen rek pare ci nekkaat ci leneen non ma ne loolu muy wax noonu amul ak ah, gëmu ko ah, na de gëmu waaye na pare dama gis naa lan gis <laughs> gis nga Modou yàlla billahi wallahi taala gisuma ci télé bi laa naa ko ci bi ah, barka alxuraanu karim mais gisuma ko fenn Pape Sarr nee na Ama même bu dee bëree ñaari bekk nañoo bëri. déggoo li ma la ay ma dama ne la moo loolu la gën a xam ne bu doon doxee bekk yàgg yàgg dina daje nga Ama foo Ama moom day nangu ko bekk yéen ko ba jege dóor di dóor ba nit ñi atte. yaakaar nga ne sax béykat da koy daan jog wàll dóor ko ba fekk day door ko yéen dóor ci suuf sëlam ko suuf di ko dóor ba nit ñëpp jàpp ci. waaw père yow loo meree Modou nii <laughs> ah père yow loo meree Modou non du question ay mere ak yooyu. Ah. parce que bu ma ko mere di ko tere reer di ko tere añ. Ah. waaye nit ku baax nit ku baax day def dëgg bala mu wax ko. Hmm. nit bu noppee nekk dëgg wax dëgg naa fekk nga yi muy def nii daaw ko def pour que amu di ko def. pour la waaye yow daw daw ay ñaata di contrat. ñu organiser loolu saal bi rek boo gisee nga xam ne ba ñaay dañ dañ ci loo xam ne nii liñ di ko daan dañ ci loo xam ne maari dañ tàlli indi ay nit. rëbbante leen jox leen añ ak reer di leen jox lekk naan ak lu ne nga ñëw ba boobu yàqu ci deux minutes dem sa yoon pour lan pour lan muy dem yoonam question la doo leen ko laaj pour lan lan la. dafa coow li waaye itam kon na waaye. ah. dafa waroon taxaw. waaye dama coow bu ci amee est-ce lan lay am. comme bu taxawoon est-ce que coow du gën a métti. waaw ma na waroon na maa xam waroon na ma maa teel a leer la ñoom ñoo doon gaase booy yi fii laa yëgal nañ ko doon gaase kii de ko wax. kon moo la mel. ma fekkoon damay jënd gaas fekk ko ca biir saal ba gaase ko damay fay par force. acca dana nga gisee Tapha Tine ndeysaan ak Eumeu Sène seen euh, présence moomu. ñoom itam jàkkaarloo wuñu ndax itam loolu lépp Modou Lô ko yàq loolu lépp Modou Lô ko yàq waaw dañoo waroon a on son mal dañoo waroon a bàyyi parce que Modou Lo ko bu ñu bu ñu jàkkaarloo woon bu ñu waxee ba pare sax affaire bi jeex dañoo waroon yéegal am na seen ak moom kii ba ñuy yéex wax ba pare ñoom ñu yéeg naka ñoom ñëpp bari nañu ñoo xam ne ñu tey ji ñu koy saal ba gisoon ñaari mbër yooyu lañu doon bëgg wax nit ñi dégg nii tàccu moom amoon supporter yi mu àndal Gambie am na ba supporter lii àdduna yi doomu aadama jëlee na ko fii pare yóbbu ko jël ay nerf jox leen yéen te lu ay lu la xamut kenn xamut lu mu doon xam nga ne bombe à gaz boobu sama waa ji sax na mosul gis bombe à gaz bu toll noonu bombe à gaz mën naa rey sax nit nga dóor ko ay nit nga jàkkaarloog nit ki yor ko mën na ko yor sax sa benn loxo ñaar loxo yaa ngi ko yore da wuute ay nit seet ko dóor leen ko ci ñoom ñoom bu ñu dee foofu porte dee wala commencement dee léegi lu ñuy wax ñoom ndax làmb rek mbooloo day dara ba tax muy ñu bëgg a rey doomu aadama su ma fekkoon moo xam lépp. ñoom dañoo am ay blessé. waaye yow ñu ngi hôpital nga ne ma lan ñooñu kenn ñëwu ci signature ba hôpital lañ leen yóbbu bu ne directement dañoo ko waxee fu ñu ko war a waxee parce que ñi ko doon def bokkuñ ci écrit bi duñu ay mbër wala bu fekkee ne ay mbër itam yeneen écrit bokk naa ko signalé au niveau de CNG ba pare ji ma ma def ko mbër yi nag muy Eumeu muy euh, Tapha ñoom ba ñu ñëwee toog nañu kenn ku ne xam na lan la fa indi saboté woo sa benn mbër yàqaloo kenn dóoroo kenn ba bagaas Modou Lo moo fa indi ay bomba gaz ànd ak ñoo xam ne ñi yor ay bomba gaz di bomba gaz nit ñi yaa ma dóor sa kii ñi moo yéeg ñi moo wàcc ba ci féeri maa ngi moom ñoo bokk féeri bi ñibbi si maa ngi Modou Lo ñoo bokk féeri ñaari oto benn oto moo dox sama diggante otoom ñoo sosaloon ne ñoo ñoo dend benn oto ngi nii benn oto sama oto ngi nii benn oto sama oto mu nekk nii ñu ànd bëggee wàcc ma wàcc wàcc Banjul jóge féeri bi wàccaat lu tax dogale wuñ nit ñi gaase leen yëbi caaxaan la ñuy def nañu bayi loolu. li may tàggatoo mooy nga ne. looy wax waa Pikine. waa mobilisé wu parce que Modou Lo mii yàq lamb ji la bëgg taxaw nañ seen kéem tolluwaay kattan lu ma ko yara jaral na leen teel a wu fekk ko bu duma ko duma ko daan ko bu ñëwee fii nañu ko duma daan ko ñaari mbër yëpp nañu ko duma daan muy ama muy booñaa takkatu leen yéen ñëpp ànd seen ginnaaw rangé wu kenn ku ne ku ci bëri jéeg moom mu ànd ak moom du nitu dara tekku dara du mënum dara du benn roi fële la yaay guddee fooy fanaan